bokki yi jullit yi gannaaw bu yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nongi bal haq ñep di balu haq ñep yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fassiyene yéene fàttalante tuuti benn tomb rekk lay doon mu melne ñun suñu jamono dafa daje ak jamono joo xam ne ji jullit ñi euh, seen sens bariwu ci li ko waral mooy euh, fu fit na juddoo ñu joxañ leen na ñoom la fit na ame rek bu fa turu jullit jegee rek ñu ne moom la doonte dafa romb jàll rek loolu nag su amee te doole yi man-man man-manub àdduna euh, dem ba àgg ci fa yow la àgg manu man du man mënu fa àgg ndax duñu la may foo waxe ne du man loolu dafa doyoon sëkk fitna te yàlla nee na woon ci alxuraan ci ñaari barab yu wuute yoo xam ne bu ci nekk ak la tax mu wax baat bi ma bëgg jëfandikoo jëfandikoo nii mooy baatu fitna am na fu muy wax ba neew al fitna akbaru min al qatl am na feneen fu mu waxoon ne al fitnatu ashaddu min al qatl akbar wa ashad amu ci lenn lu lu sedd kon bu fitna tasaaroo wali mel na dafa jëm si ci jullit yi fu dara xewee ñu joxañ leen bu dara xewagut it kenn ku ci nekk ñu fekk ko fa mu nekk lu xorsi ko ci xottu gerteem joxoñ ko su leen téye wuyu ndax pas-pasam dëgër na lim nekk fa su ko yéenee bàyyi fekk mi ngi dund te bu dundee it ñeneen ñu ñeneen juddu war gannaawam gën koo dëgër ñu ne léegi nañ ko def ni ñu defoon garab bokk yi ci ay jàngalay wolof bu mag masaan toog ak akuk njabootam wax nañu ne la muy wax mën naa bañ a am solo waaye la muy léebu lu fi sax ba faaw wala mën a doon lu wér lay doon daanañu léebu ne ku ay bokkam euh, niñ ko waxeet sax ku ay noonam jeex ay bokkam jeex dellu wax ne garab ba ñu ko bëggee fexeel jële ko ci am pénc dañoo wuti weñu kese kese fëgg ba seeni loxo tay mu mu kekku ree ba kekku ne mënul leen ma dara yàlla ma fi teg ñu dem wuti aw yat mu ne bu dew yat dong la moom ci man la bokk amuluma benn solo mu séen ñu jël ak weñ del jëm siwaat ci moom mu ne dañuy tàyyi rek bàyyi ndax mëna luñu ma dara mën nañ jam nag waaye bis lañ dagg bant ci garab gi ci moom mu bokk ci ak njabootam ñu roof ko ca weñ ka mu ne yàqu naa ndax sama mbokk bokk na ñu ñi ma fexeel bokk yi euh, fan yi am na ku dëkk ci am réew téere bi sax du téere bu yees mën naa am tey soo ko ñëw Sénégal réew moo xam ni mii sénégalais yu bari ñu ngi fàttaliku jeexit ju am maanaa ju fa jóge woon muy Tunis bokk yi bari nañ bari na ci Sénégal ay mag yoo xam ne ak ñu xaw magaale ak ñu ndaw téere téereb alxuraan bu jege woon tunus lañ doon jànge alxuraan mu wow koŋ moo fi jëkk ñëw ci téere yu jóge bitim réew téere yu xonq yi ñuy wax wow koŋ ay kaangi kaangi kaang mokkale ci alxuraan waaye bokk yi ci tunis googu tam la jógewaat keneen ku bindaat ab téereey doon ci wut ab diplôme wala ab neexal wala ak siiw di dal ci kaw ki nga xam ne jullit yépp yi ci kaw suuf moo leen gënal seen bopp bu fekkee daa bëgg a siiw tax mu def ko tur wi danañ ko dégg waaye jëmm ji moom dana nëbbutu ab diir ndax xam na ne dugg na kaso bu mu dul génnati bu fekkee deewagul sax bu fekkee reyguñ ko waaye moom munta dee noonu rek faw ci ay loxo lay dee ndax bu bëggee siiw yonent bi ko gën a siiw fuuf te yonent bi njariñ la siiwee njariñ am njariñ ndax koo xam ne yàlla mi bind lépp bind ñépp bind fépp moo jël ay aayaat te alxuraan nee na yàlla nee na aaya la ci aayaam ya alxu aaya boo ko déggee mooy kawtéef kiimaan su jëlee benn ci aayaat yooyu nekk ci biir alquran di ci wane yonent bi mooy kan kooku neexut a far maanaam far ko ñu kenn bañati koo dégg kenn bañati koo gis wala nga yàqab dara mëntut nag ndax am na fu yàlla di waxe ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ku ko topp yaa ngi ca yoon wa ba wëññikuwut da nga àgg yàlla nañu ko yàlla jàppandalal kooku yàllaa ko layal ba noppi leer na nañ li mu nekk leer na yàlla waxaat ne lu mu wax def leen ko lu mu tere bàyyi leen ko ñaata jullit ci àdduna bi siñ bi ñoo am ci ab lim boo xam bis bu set lu mu néew néew danañu ubbi alxuraan jàng ca kaw taseeg aayab in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ولا مجانغ بفكه كو سري غودلا ان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين ولا بودي كو خوا سوف الوتوت وما اتاكم الرسول فخذوه برنا غوري يكو جانغ وما نهاكم عنه فانتهوا فانتهوا واتقوا الله ان الله شد العقاب برنا غوري يكو جانغ واي ام نيو جانغ بس بوسات جارتي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى wa ma atakum rasul fa xuduhu mooy lu mu leen indi lu mu leen jox jël leen mel na nam war a mel ndax jaar na ci kéem war a jaar waaye lu mu leen tere yàllaa ko tere te tere rek ko cay war waaye musta jaar ci lu ñu koy tere waaye du waxe bakkanam mukk lu ngeen dégg mu wax ko rek bu ngeen ko toppee tuuti da ngeen gis bu dee fu fu mu joxañ la njariñ ne fa da ngeen ko taseeg moom ci lu gaaw bu dee fu musiba nekk dangeen ko gis bokk yi amna na ayab alxuraan boo day wax ne bu len laaj lu nek rawatina di laaj laaj bo xamne jiblu wo ci xam kese kesse waye la tax ngay laaj moy waji amna ko ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk bisub karo daf ne luma way laaj ma tontu la luma way laaj ma tontu la nak bukkut ak luma way laaj xamna ko ndax xawma ko ci xam-xam la bok tontu la waa ji ne ko dama lay laaj bi may ñëw fii fu ma bàyyi ko nu ma tudd ak nu sama baay tudd ak bu mu jógee fii fu ma jëm yonent bi yàlla layaloon na ko du waxe bakkanam lu mu wax lu ko leer la yonent bi ne ko cig mooy yàlla nga bàyyi ko bi ngay ñëw fii ki ñu wax ne mooy sa baay du sa baay diw la sa baay tudd sant nangam bu doon suñuy sant ne ko boo jógee fii tam sawara nga jëm ba mu fa jógee diggante bu gàtt la dox ñii ne garab la romb euh, dara fàq ci kaw garab ga daana ci kawam mu de dem sawara ndax ñaawal yonent bee ko taxoon na jóg ñii ne garab garab ci boppam moo daanu si kawam ndax da doon ngelaw ngelaw lu metti di waaja taw muy seelu ci doon garab garab ga daanu si kawam lu yonent bi waxoon lépp wér na moo tax aaye ba ne bu leen yi loo xam ne bu ñu leen ko waxee bu ñu leen waxee lay tontu la dëgg dëgg du leen neex moo tax du waxe bakkanam mukk koo xam ne nag bokk yi yàlla nee na ko mi ngi waat li fekk xalimaa ngi bind ndaw lu nar a yàgg yow mi liñ lay wax naan nga àndut ak sa sago ah kay ku and ak sa sago nga bay fat ñu ba mëna fat ñu bari garabuk ñu bari ci sa loxo lay jaar eh, li la yalla di fay ci lo def itam tank bo seq yol la bo xamne du jeex ba mukk tayit man yalla ma la koy fay du lu leen di ñax bu ëllëgee ñax moy dala ñaaw naan su du ak man bokk yonent moy ko xamne li ay léebu di wax naan koo xam ne fu dara nekkut la fekk mu def lu ne léng from nothing to something yonent bi moo mooy yonent bi sallallahu alayhi wa li woote bi xumb xumb ak li muy siiw siiw ak li ñu koy tudd par bis ci àdduna bépp bi muy ñëw fekku fi kuñ naan bu dul woon ak moom du am nangam baayam yonent bi fekk kaw suuf bi muy gane àdduna baayam nekkul ci kaw suus si gaañu la bi muy laata xàmmee yaayam bàyyi ko na fi ba muy laata man dara ka ko yoroon di maamam bàyyi koo fi mboolem ñi ko doon taxaw bàyyi koo fi bi muy laata doon ki doon bay woote mu doon ku tumuranke koo xam ne fu dara nekkul la tàmbalee ba def lu na jóg bokk yi kooku waajtaay suñu borom la am yàlla it nee na ko bis boo xam ne daf daan jot wax yu naan yàlla nee na yàlla nee na ba benn ba yàgg gars yi di ko laaj munta tontu mu xaw a jaaxle dem ci soxnaam soo si mu yoroon ba woote bi ñëw ci moom soxna Khadija radiyallahu anha mu ne ko yow day na xel dal lu baax rek ngay am bu doon suñu lànga suñu waxee jamono ji lu baax rek ngay am lu baax rek ngay taseel ndax yéene kenn ab safaan koo fekk mu am jafe-jafe ba bala bala ngaa am jàmm daal lijjantiku te booba bokk yi diine amagutoon lislaam wàccagutoon nii mu mel nii melagu ko woon seela ko yàlla ne li maa ngi giñ li feeg yor yor a ngi am kon loolu muy wax du daj li feeg lëndam a ngi am gu ñu tudde guddi na sam xel dal ci ne yàlla du la bàyyi mukk yàlla du la bàyyi nag ginnaaw xas na ko wax ci alxuraan du ko seetaan dañuy jàpp ne li fekk jeneen alxuraan ñëwaatut te jeneen alxuraan du ñëwaat loolu mooy wéy ne ko sa tey ju nekk moo lay dàqal sa ëllëg sa ëllëg ju nekk moo lay dàqal sa tey wala laa xeetu xëyrun lak min al ula sa ëllëg ju nekk mooy dàq sa tey yàlla la dana la jox li nga soxla ba sa xol sedd guy ndax yàlla fekk la woon sa bay nelaw laata ngay gën a àdduna sa yaay laata ngay xàmmee mu bàyyi koo fi mu ne ko aha kay mu ne ko mu yiir la ba nga ne jom mu ni nim nopp mu ne aha kay mu ne ko mu ndax yàlla fekk bi ngay xàmmee doonoo woon fekk la woon nga doon koo xam ne fekkoo woon nga doon koo xam ne xàmmewoo woon lii fat la am xàmmewoo woon fenn fu jëm fii wala faa mu ne aha kay mu ne ko yàlla ne la wii moo yoona ba ay ay nit topp ci yow li ci kanamay dàq na sam xel dal te xam ne fu ñu ma tudd des na la tudd rafaana laka dikrak kon wax suñu borom jooja agsi na bokk yi amul fenn ci kaw suuf foo xam ne duñ fa nodd amul mel ni réew muñ doon nodde fi mu ne ni ci kaw suuf si bu ñu fa di wuti des na fa li xam julli muy kenn wala ñaar bu ñu fa doonee kenn it faw kooku li xam moom ci boppam tudd yonent bi tudd yàlla tudd yonent bi wala mu taayee tudd yàlla tudd yonent bi sallallahu alayhi wa kon kooku weesu na nit di bind ci loxoom lu koy mën a ñaawal wala luy tax nit ñi bàyyi ko déedéet wax nit lu tax ñu jàpp ko moo gën a jafe foofu wax bañ jàpp nit ki moo gën a jafe waxuma la mu jàpp ko ba noppi ngay wax lutax mu bayiko dedet redé ko ci jàpp li tax man lu bes bees am na ku massa wax ne alquran wax lam ta wax du ma ko sama lamé tudd Salman rusdi Salman rusdi bokk yi liggéey na liggéey bo xamné xamuko su doon abdulis tan def ko ñu ne lu bax la ci am ndax bokk yi fi ci Tuubaa mak mu bax mu fi dëkkoon ku ñu wax Sëriñ Abdul khadir Mbakke doon na jiite jumaatu Tuubaa ji si Abdu Xaadir bi ku ñuy wax Xumayni faloo te réew mu Xumayni nag ak Sénégal amoon nañu diggante ñu bari ñëw ci moom ne kooku day rey nit ñi rek mu ne waman qatala bi dal aayab mooy waman yaqtul muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannamu xaalidan fiha wa gadiba allahu alayhi wa laanahu wa aada lahu adaban azima mu atte ko ba noppi ne kooku day kon noonu noonu lay mujj ginnaaw day rey ay julit waaye kara bañ ko ne xumay ni moomee doon rey julit yi daal waxaat na ne ci ku ñuy wax Salman Rushdie mi ŋàññoon alquran ne am na ci aayaat yoo xam ne du waxe yàlla waaye waxi keneen la tudd ku bon ku ñëpp yi musul par bis ñu ne ko Khomeini nee na ku ko rey wala nga wane ko bañ rey ko yow mi ko wane bañ boo ko mënee rey nga rey ko boo ko mënta rey nga wane ko ñu rey ko yow yéen ñaar ñëpp kenn ku ci nekk dis na la jox juróom fukki junni dollar par par at ba ba ngay faatu at mu jot ñu jox la cinquante mille dollars ba ba ngay faatu doon téeméer at nga am ci kanam kooku alxuraan moo ko booleeg Khomeini si Abdou Khadir nekk nekk kooku moo fi gën gannaaw alxuraan jaral na ko loolu. Xumayni ak Seexu Ture lañ mas a dégg Sëñ Abdou Khadir wax ci jumaay Tuubaa gi nañ leen ñaanal ci jumaa ji bisub àjjuma waaye alxu ŋàññe ga waa ji ŋàññe alxuraan moo jubale Sëñ Abdou Khadir ak Xumayni ba Xumayni ne bañ ŋàññee alxuraan Xumayni ku rey waa ji ŋàññe alxuraan des na la jox juróom fukki junni dollar par at ba ba ngay faatu te soy faatu nga wax ko nga wax ki ngi koy jox moom itam ba bamay faatu nan la ko wax mu ne mom kay kay nekete mo fi gën du tax mu gën fi moy gëna bëgg na alquran ni mom alquran dalal nako lolu ngir mom ngir ni mom si Abdou Khadir waye amna ku ñu wax taslima nasri ñoom ñaar ñi ma wax bañ defé lañuy def wax lañuy wax ba siiw ca ña mëna gis fi ton li bëré tut dañu duggal seen bop kasso bo xamni bi sawara lañ koy àggalee ji am na keneen koo xam ne ab sénégalais la bëkk Dembo Ndiaye professeur la woon ci université Cheikh Anta Diop waxoon na fi ci xam-xamam bu bari ak dégg làkk ba dugal ci alxuraan saar yu ko neex ne bokku ci ak i aaya génn ci ay aayaat yu ko neex wala ay saar na ci la bokk ndax bindoon na ci ne suratul ibil ci alxuraan la bokk dañ ko cee génne xul huwallahu ahad bokku ci alxuraan diw ñoom ñoo ko waxoon xanaa daa gis alxuraan bi wàcc wàccee ci ay arab te arab bari gëléem rek mu defee ne saaru gëléem war na ci am gannaaw saaru nag am na ci ak bëy ak xar ak taabal ak yi alxuraan bari la lool tuddee ko ay tur ay góor ak ay jigéen ay maryaama ay taaha mu defee ne gëléem war naa am ci alxuraan ndax lim dëkk ak naar arab kooku bokk yi yàllaa ko reyal boppam laata muy faatu mboolem ñam doon liggéeyandool bàyyi nañ ko te xamuñ lu tax ñu bàyyi ko tumurank gu mettee métti ci la faatoo ci la faatoo waaye ginnaaw nag ci suuf si Sëriñ Tuubaa nekk la nekk duñu ko ñaanal duñu ko ñaanal safaan waaye su jëmoon ci moom it duñ ko ko teggil ndax amuñu lu dul alxuraan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ gisoon safaan bu ñëw ci moom it duñ ko ko jëm a fanqal moom déedéet moo tax euh, que ñu wax ne moo ŋàññoon yonent bi ci réewum tubaab binde ko nu mu ko neexe ay année 2005 2004 kooku wax nañu ne dañoo ñëw fekk mu lakk ba jaax tàkk gis nañu it ci internet mën naa wér mën naa bañ a wér waaye mën naa dànkaaf ku ko nar a defati bu ëllëgee jigéen juñ ciy wane joo xam ne da daan wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko neex yàlla xëy xëy saxal ko gémmiñu kalbu loolu tasaaroo na loolu ci àdduna bi te kenn wa déggu ko su fekke dañu bind ab kamil tunis muy kamil bu wo kong warsh bu leer nañ bo xamne ñi ci doon jàng xamuñu won amna ci ñu bari ñoo xamne xamuñu won sax warsh lañuy jàng waye bar nañu bind kamil alxuraan boo xam ne wars lañ ci lañ ci lañ ci lañ ko binde ta fek kamil bobu lañ def muy sen marja ëpp na juróom fukki at kamil ba nek fi bokk yi kamil bobu jóge Tunis mo wér ne Tunis la jóge waye leneen lu jóge Tunis di wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diñ ko jàpp alxuraan dafa jóge won te lañuy jàpp yàlla na yàlla fay borom alxuraan joojee moo tax loolu du xew-xew bu am solo waaye faw ñu fàttali jullit yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ànd ak moom sam xel war naa dal kenn koo xam ne fekku fi kenn ku ko taxaw mu xëy xëy di looy